bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah internetu Dakaractu yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a di leen ziar di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen euh, mu mel na ki nag euh, ak Babacar ak Dakaractu ak làmb ji rek du man a ñàkk te tey nag maa ngi jàkkaarloo ko nga xam ne ni yaakaar naa ne ah euh, moom mooy magu Franc maanaam grand frère la Franc nag bu ñu ko waxee mooy Franc mbër mi ci làmb ji champion bu parcelle bi ñu fas yéene waxtaan nag ci loo xam ne yitteel na mbiri Franc parce que fan yi coow li bëri na ci adversaires yi jàppal bàyyil wax ji daal bëri na bëri na ay sujets yoo xam ne nii fas nañ ko yéenee traité moom na xëy na dina am lu bari loo xam dinañu ko indil ci mbiru Franc ak fi mu nekk nii ni coow li demee ci dëkk bi Laurent mang lay ziar. waaw la delloo ziar Babacar waaw la jox sa wàccuwaay waaw di nuyu monde làmb ñëpp waaw di jox ñëpp seen wàccuwaay di ñaanal ñëpp jàmm waaw surtout ci période tabaski bi ñu jëm waaw di ñaanal réew mi ñëpp jàmm boroom kër yi yëpp suñu borom yombale leen lépp noonu laay daawee daal. am na solo ba nee naa yéen ñaar euh, yéen a bokk nday ak baay yaay grand frère am euh, yaakaar naa yaay grand frère bi de wala. bon ci weesoo mboq gi ñu bokk euh, rakk la parce que am man mën naa ne ñoo ko def mbër ñoo ko dugal ci làmb ñoo ko tette bu mu egsi fu mu egsi nii tey quoi muy au passage may nuyu Mor Diouf Diouf production waaw man ak moom yaa yaakaar naa ni carrière Franc bu egsee fii joué nañ ci rôle bu mag parce que Mor tamit ganaal bi nekkoon ci koñ bi. tax na booy bëgg làmb jàppale na Franc pousse ko ci ba muy nekk xale bëgg ko man ma nekkoon magam aussi man ak Mor ñu doon ànd def que booy xoolee parcelle mbooloo xamaa ne ñoo ko créé man ak Mor mm-hmm. waaw bu nekkee bu ne waaw bu nekkee structure bu bu bu bu bu structuré woo ba am euh, kii ay récépissé lépp man ak Mor Diouf je crois ñoo ko ñoo ko ginnaaw yàlla yàlla daal li ci def li ci wér ñoo ko def parce que waaw dox guddi dox bëccëg ñoo dem seeti gars yi ñoo bind ñoo dajale paay yi ñoo reñee ñoo def lépp seeti ndem si yàlla si di ko ñaanal fu mu ne génne fu mu jugee ñu waxtaan ak moom ba yàlla def li muy def ba mu jurte ay champion yu mel ni ay Yanda jaar fii ay ay ay Boy Ndiaye ay ay Ondinga ay Zëm xam nga ay Ibra Gaabo ñëp ay champion la yoo xamante ne parcelle mbooloo moo leen produit ba si ñi fa nekk tey mooy bébé rek rek ñoom far bu jaar mi am ndam barki démb ñu koy ñaan yàlla mu jig ko waaw donc euh, voilà euh, kon Franc bu weesoo lu ñu bokk raq la ci làmb raq la ci kër raq la ci koñ raq la ci lépp daal waaw. Euh, fan yi mu mel ni ki yaa maanaam ni ma ko waxee léegi soow li bëri na ci Franc par rapport ak bi mu daanee bombar Bombardier Eumeu Sène daan Sa Thiès mu dëkk Eumeu Sène ne na ñëw ñu bëri mais ca biir dëkkin ba am ñu jàpp ne na mu waxee ak moom waru waxe ak moom parce que nee na ko doo champion d'Afrique sa roi des arènes mooy loolu mu mel ni wax jooju a ah, dafa mel ni jur na polémique boo xam ne ci dëkk bi daal ñen ñi jàpp nañ ne Franc nii mu waxee du yoon parce que joxul cër Eumeu seen rawatina waa Pikine ña ca des tamit jàpp ne li mu def aayul ci làmb la bokk yéen nu ngeen ko gisee yéen ñi bokk ak moom. waaw euh, ñun ni ko mbër bi gisee lañ koy gisee maanaam def na sorti lu yàggul dara non je je émission la intervenir sax di wax ne waxul lu ñaaw te ñun dañoo gëm ni Franc waxul lu ñaaw làmb yàgg na am coow tëj coow sax moo jig làmb mais làmb yàgg na am coow de defe naa li Franc wax Eumeu bi nga comparé ak li gars yàgg wax ci bëgg bëreeg mbër wala ci combat bu taxaw non xoolal ça n'a rien ak li fi ay mbër yàgg di waxante mbër tudd na fi euh, biir néegu sëy jàmbur mbër tudd na fi euh, ndey ak baay jàmbur mbër tudd na fi liggéey jàmbur mbër tudd na fi lu nekk te Franc génnul cadre sport ba léegi. mais est ce que yooyu nga wax noonu mbër war na tudd est ce que loolu na ci sport. waaw moo tax ay tudd ay sëy ak ay famille ak yooyu. moo tax la moo moo tax ma ne parce que non c' est que booy bu jël singil ko wéeru ko ci miir bi problème bi lan bien vrai que les ñaaw warul tax mu wax lu ñaaw wala we les mel warul tax mu mel ne parce parce que Franc def lu mel ni la ñee defoon taxul loolu baax mais dama la bëgg wax rek comparé maanaam Franc génnul cadre sport Franc dafa xam wax magam ne ko. Euh, do champion d'Afrique wala sa roi des arènes safewul ndax da nga teg lay ay defetu dul jeex bo ñëw mais li gënoon yomb moy Eumeu Sen non seulement bu dé champion d'Afrique la mu xam mu xamal ko ne ko champion d'Afrique la preuve ya ngi ni su su lolu so mu ne mu ne ko six défaite la am mais man ak yow bu ñu bëree duma la ma daan la nga jël ko duma ko daan ko Lamine xalé bu la dëkke ngay mag donc pour won ko ni man duma sa morom man ma sa mag wala yooyu da koy jël duma ko budul lolu loolu mënoo ci ay daf ma wax lu ëpp wala daf ma wax lu gatt Eumeu Sène ñun fekke nañ fi mbër wax lu gën a ñaaw li ko Franc wax te teewul daa jël avance am xam nga nittali xuloo comme ni ko gars yi di waxee ay xuloo lay wala leen na yee ñu jaar ci ay wax mais dama dama ne ñaar moo ci am ñaar am na leen lu bëgg ci combat bi wala dafa ragal booy bi. leneen lu mu ci bëgg mooy. non am amaana mu bëgg ci peut-être cachet bu mu ci bëgg kenn proposé wu ko wala mu bëgg ci làmb ci am beneen coow mu soo koo jël. wala wax illaa daa ragal booy bi mais amul dara luy tax Eumeu Sène bay jël Franc ci ay cadre lu mu wax Franc waxu dara lu ñaaw yow war ngaa gëm ne Eumeu Sène dina ragal mbër yow ak Eumeu Sène fi mu débuté carrière ba yegg si fi dégg roi des arènes fu mu jaar fa ci mettitu lamb ak ak ak lamb dina dina ñëw ba tollu fii di ragal mbër gaa ñi li saxaar de gaay leer laa la wax li saxaar parce que Eumeu ci ay waxam damaa bëreeg Sa xëy gëm ne damaa war a bi commencé waajal Franc Franc xëy wax moo du ma bëreeg moom moo tax ma ne ko déedéet da nga naan damaa xëy damaa bëreeg Sa Thiès daan ko gëm ni dama war a bëreeg Franc xëy di ko waajal li si xaar ma xool mu mu mu lëndëm kiris gisuma dara mu weex moo tax ma xëy ne du ma bëreeg moom mais du lu mu wax Lamine Franc xale la te Franc maanaam kenn amul kenn ku téye ci loxoom indi ko fu mu toll Franc gësam indaaloo ko dara indaaloo ko daal liggéey bi egg si fii dafa liggéey bi egg si fii treize combats treize victoire keroog ba nga ñëwee suñu kër contre bomb bëgg

bu ñu mënee may booy bi chance may ko chance bu ko mënul may chance ñu wax sportivement ni mënuñu bëre ak moom mais moo gën dafa réew parce que inte sorties yi daa bëri sorties yi daa bëri dafa réew dafa lii ñii di sos ñii di wax doo comprendre donc. yow dafa réew googu da nga ci àndul wala. yow loo gis yow miy magam. waaw ñun ay responsable lañ man Franc waaw waaw Babacar Franc Franc man man du ma staff technique Franc euh, administrativement yoruma Franc maanaam. Je suis suis pas un supporter Franc man Franc la responsable la man magou Franc la responsable laa dama dama dama la ne Franc bu pas? ëmma sen baat wala mu togon ci plateau émission wax wax bu ñun suñu biir si penc bi suñu biir ko da ñu Franc ne da ci kon yow ak ci ay propos yu Franc dama dama la ne bu amone bu bu ci biir kër wala bala mo tëdd si lal ñu woko ne ko rek da nga jum parce que ñu ñu rakal fana ñun manam nit nit dang koy faral ragal ko wax deug wala nga faan ragal ko deug wala nga am lo yaakaar ci wax ragal ko wax deug mais ñun fanaa yooyu amul suñu ak mom, suñu rakal au contraire lepp lo xamanteni ni na indi ay problème ci carrière am ñu ne ko bul jaar ni jaaral nii bul tegg li tegul ne ñi ñu xam xam nañ li li ñuy wax ñi deglu xam nañ li wax bu baax fanaa bu jaawon ëma sen baat lu mu ko warul wax ñoko carrément ne ko mbeur mu ne ah, ne ko ci deug wala ki sa grand bul ni mais un deux champions champion d'Afrique wala Eumeu man ak yow nga wala sa roi bi ñu da nga ay juste pour waa wax ji am fu ko tollu mu fipp ñew jël bi ak mom te bis bu ak Franc xamné Franc da ko jox cër su Franc Franc da waaw parce que problème Lamine ñemewuñu Franc problème moy du du du baax la du pikin micro tawal ko Xaadim Njaay wala keneen ku mu doon ci magu caare yi tudd rëg-rëg ne Franc li ngay njëkk dégg mooy bëréew ñoo nga dem Fass ne Gris Bordeaux ñu ne la boo demee Guédiawaye ne Sa Thiès ne Balla ne la bëréew ñoo ak Franc Sa Thiès barki nee ne bu jëlee Franc yàlla ko Franc doon mu daanu bu wax bi mooy ma la wax gars yi dañuy dañuy dañuy daa am lu ñuy seet gis guddi yi nii néeg bi ñu nekk ñoom ñëpp tijji si biir néeg bi boobu yor caay bi ñëw duggal di ko tijji noon la ñuy doy ñu jàppandoo ci benn loxo bi ne di ko tijji nga xam nañ ne bu duggee ci biir arrangé wu leen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 Daddy.